vous êtes un acteur économique mm-hmm. euh, tey ji tey nan lan nga war a jàppale loolu moo war a nekk taxawaayu état vis-à-vis du secteur économique sénégalais d'abord ban ban constat ngay def ci relation yi entre l'état et son secteur économique son secteur privé xam nga secteur privé xam nga secteur privé état état am na secteur privé ma parce que am na benn petit groupe bu ñuy wax patronat Sénégal nangam nangam état am na secteur privé parce que ñooñu rek lay déglu gis nga gis nga waaw man man man du ma ci bokk. non da ngay dem militer dans ces organisations man du ma ci bokk. lu tax doo ci bokk bëri naa morom yu ci bokkul. bokk may mun a xam nga la réalité de la vie actuellement c'est quoi. Hmm. may mun a réew jeune bu ne ngay jigéen comme ngay góor war nga aspirer à nekk un acteur du développement de ce pays xale yi jox ñu leen sens boobu. joxuñu leen sens boobu may mën a fii metti dafa bari dorki démb maa ngi dégg ay militaire invalide di gaz di nangam. mais pourquoi demoo militaire pourquoi nanguloo militaire ci organisation patronale yi lan la laisse-moi finir laisse-moi finir s'il te maa ngi dégg ay militaires yu invalide affaire yooyu di gaz mu ne yooyu dafa wax a jeex Sénégal. mun Maïmouna am na ay agent so Sotrac tu te rappelles de Sotrac Maïmouna depuis quand la depuis quand boobu ñi ngi am carte Sotrac di dem di jàngi je me rappelle j'étais au CM euh, Adama de bopp ay carte Sotrac temps yooyu nga amoon nga dégg boobu ba tey ñooñu ñu ngi casse de la seeni indemnité ay ay sias tu te yaa ngi fàttaliku temps bu sias sias ñoo doon kii mbalit bi avant UCG ñoo sias li may wax ni yàgg na de mm. ay ñu ngi nekkoon côté buntu Pikine may mun a système bi fi am depuis des décennies dañoo war a ñun dañoo war a jël suñu responsabilité ñun seen laisse-moi finir s'il vous ñun sénégalais dañoo war a jël suñu responsabilité système bi moo doy.